alhamdulillahi faatiri alsamawati wal ard jaaili almalaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa yasiidu fi lxalqi maa yashaa inna allaha ala kulli shayin qadir wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla leen ko dénk ba tey ci bunt bi ñu nekk muy nafaraat suñu diine nafaraat arkaanul imaan ci xutba bi weesu ñu nafaraatoon lu aju ci ni ñu war a gëme suñu boroom tabaraka wa taala ci xutba tey bi ñu war a nafar ni ñu war a gëmee almalaika ndax arkaanul imaan xam nañu ne juróom benn la te mooy gëm suñu boroom tabaraka wa taala gëm ay malaikaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm bis bu mujj ba gëm ab dogal yooyu benn bu ci manqué rek ngëm yàlla duutu fa nekk ngëm yàlla ga duutu mat bokk na ci ponki ngëm yàlla yi gën a mag yi nga xam ne ngëm yàlla du mën a wér lu dul jaam bi daf koo dikke muy gëm malaayika yi alayhimu salaam suñu boroom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm na lii ñu wàcce ci moom di alquran ñi gëm yàlla ñépp itam gëm nañu alquran gëm nañu yàlla gëmi malaayikaam gëmi téeréem gëmi yonentam yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko jibril alayhi salaam laajee lan mooy ngëm daf koo wax ne mooy nga gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm ay téeréem gëm ay ndawam yi mu yónni gëm bis bu mujj ba gëm ab dogal bu yiw wa ak bu ay ba koo xam ne gëmul malaayika alayhimu salaam kooku weddina yàlla kooku ngëm yàllaam ngëmam nekkatul ci moom ba tax borom bi ne wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir faqad dalla dalalan baida koo xam ne weddi na yàlla weddi ay malaayikaam weddi ay téeréem weddi ay yonentam weddi bis bu mujj ba te benn boo ci weddi rek weddi ngay ca des yépp nee na kooku day sànku na cànkute gu sore sore gëm malaayika yi dafa bokk ci gëm kumpa gi nga xam ne bokk na ci melokaani yi gën a jagoo ci ñi gëm yàlla allazina yuminuuna bil xayb boroom xam-xam yépp daje nañ ci ne képp koo xam ne weddi na malaayika wala mu di leen yëjji di leen doya dal kookee weddina yàlla malaaka yi suñu borom tabaraka wa taala daf leen a bind ci leer ay jaam lañuy tedd yoo xam ne bokkuñoo doomu aadama yi bind moo tax ñoom duñu lekk duñu naan duñu nelaw duñu mooy suñu borom tabaraka wa taala ci lenn lu mu leen digal lu mu leen digal rek loolu la ñuy def seenub lim nag nu ñu toll yàlla rek a ko xam wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu yàlla rek moo xam soldaaram yooyu di malaayika yooyu ak bindeefam yi naka la ñu toll ñoom malaayika yooyu ñu wuute lañu ci aw melokaan ci ni leen yàlla binde borom baa ngi leen di melal ne ñoom boroomi laaf lañu am na ñu ci yor ñaari laaf am na ñu yor ñetti laaf am na ñu yor ñeenti laaf nee na sax dana dolli ci bind gi mu leen di bind lu ko soob yasiidu fil xalqi maa yasha inna allaha ala kulli shay'in xadir kon woote nañ ci ni leen borom bi tabaraka wa taala binde ñoom malaayka yooyu nag bari nañ ay jëf yoo xam ne yu ñu taxawee la yoo xam ne yu leen suñu borom tabaraka wa taala digal la am na ci malaayka yoo xam ne ñoom ñoo yanu aras borom bi ne allasina yaxmiluuna al arsa wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yuminuuna bi wa yastaxfiruuna lillazina amanu nee na ñi nga xam ne ñoo yenu aras ak malaaka ya nga xam ne ña nga ca peggu aras nee na ñooñu dey fu ñu toll ña ngay sàbbal seen boroom tabaraka wa taala di fedd li seen gëm yàlla waaye di jéggalul ñi nga xam ne gëm nañu yàlla am na ci malaaka yi malaaka moo xam ne mooy wàcce wax wi gi ci yonent yi te kooku mooy jibril alayhi salaam moo wàcce alquran ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu boroom ne nazala bihi ruuxul amin arruxul amin mooy jibril nee na moo ko wàcce ala xalbik li takuuna min al munzirin am na ci malaayka yooyu ñoo xam ne ñoom ñooy bind jëfi jaam ñi ak seeni wax borom bi ne wa in aleykum la xaafisin kiraaman kaatibin yaalamuuna ma tafaluun kon jullit bi war naa gëm ne fu mu nekk am na malaayka yu ànd ak moom yoo xam ne seenu jaamu yàlla mooy lu mu wax ñu bind ko lu mu jëf itam ñu bind ko mooy téeréem bi nga xam ne bu ëllëgee ci lañ koy àtte moom lañ koy wax ne iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba jàngal sa téere bii tey kat mën ngaa régler sa bopp iqra ñaari yoon rek la ñëw ci alquran muy jàngal benn bi fii ci àdduna la téerab borom bi lañ la jàngaloo iqra bismi rabbika la si xalaq beneen bi yowmal xiyaam la sab téere lañ la jàngaloo kii taxa nag mooy kii fexe ba li mu jàngoon ci téere borom bi tabaraka wa taala dëppoo ak la nekk ci téereem boobee nga xam ne moo ko dicté moo ko dicté malaaka yi ñu bind ko bu ëllëgee ñu jox ko ko kookee ku ko nangoo ci loxo ndey jooram kooka mooy taxe bu ëllëgee fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqulu haa um iqraw kitaabiya inni zanantu anni mulaqin xisaabiya kooka day bég lool ci téere bi ku mu jegeel sax dala koy wan ne leen kaay leen jàng li ci sama téere bi li ci nekk day li tax mu jaar yoon mooy ba ma nekkee àdduna dama bàyyi woon xel bis bii ñu may jox sama téere te mboolem lu ma jëfoon wala ma waxoon ko nekk ci biir téere bi am na ci malaayka yi ñoo xam ne ñoom suñu borom tabaraka wa taala da leen a booleeg doomu aadama yi ngir ñu di leen sàmm ndax doomu aadama yi fii dañ fee nekk ak yeneen di bindeef yoo xam ne duñ leen gis te ñoo leen ëpp doole muy jinne yi ñooñu nag bu ñu àndul ak malaayka yu leen di sàmm ci ñoom ñooñu mën nañ leen a lor watam borom bi ne lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfi yaxfazunahu min amrillah ku ne ànd nga ak malaayka yoo xam ne dañuy relewente ñii bu ñu yendoo ci yow bu ñu julee timis dañuy dem yeneen malaayka yi ñëw fanaan si bu ñu julee fajar ñu dem ñooy yendu si daal di ñëw moo tax muti ko muaqibaat dañuy relewente ñu dem rek ñu ci des ñëw lu ñuy def yaxfazunahu min amrillah dañuy sàmm jaam bi ci mbiri suñu borom yi tabaraka wa taala dogalam yi yi ci wërta egsi ci moom yépp ñu fekk ko digganteem ak yooya am na ci malaayka yi ñoo xam ne itam la ñu leen togg jëf mooy nag jël ruu yi te ñoo ñëkk leen jiite mooy malakul mawt moom la borom bi ne qul yatawafaakum malakul mawti lasi wukkila bikum summa ila rabbikum turjaun ki leen di faat di jël seen ruu yi mooy malakul mawt ci yéen lañ ko affecté wukkila bikum te nag ci suñu borom tabaraka wa taala ngeen di dellu waaye buy ñëw nag day ànd ak ay malaaka bu fekkee ki ñuy jël si ku nar a texe la malaaka yu bari yu yërmande malaaka yu taaru lay àndal moom la borom bi naan allasina tatawaffaahumul malaaikatu tayyibiin fekk mu nekk nit ñu teey malaaka yi buñ ñëwee dañ koy nuyu yaquluun salaamun aleykum udxulul jannata bima kuntum taamaluun dañ koy nuyu ne ko kaay nga dem nag duggi aljanna ci sababu lu baax li nga doon jëf waaye bu fekkente ne ki ñuy jël si moom ku weddi yàlla la ko doon mooy yàlla la am na beneen délégation malaaka bu muy àndal moom malakul mawt ñoom ñëpp nag malakul mawt moo leen di jël si waaye nag buy ñëw day ànd ak limub al malaaka yoo xam ne ñoo koy traité di dindi ruug yi di dindi ba nga xam ne tuutee ci des nag malakul mawt du ko jël moom moo koy eggale waaye malaaka yi ci des nag yooyu muy àndal ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy nocc ci ruug yi moom la naan walaw tara izi zalimuna fi xamaratil mawt wal malaikatu baasitoo aydihim axrijoo anfusakum al yawma tujsawna bima kuntum taquluun ala llahi xayral xaq wa kuntum an ayatihi tastakbiruun nee na boo gisoon tooñkat yi buñ nekkee ci sukuraat fii xamaraatil mawt malaaka yi tàllal seen loxo naa leen axrijoo anfusakum ruu gi na génn tey jii ngeen di dajeeg li ngeen doon jëf ci lu ñaaw ak li ngeen doon wax ci yàlla te du dëgg moom la naan inna allasina tawaffaahumul malaikatu zalimi anfusihim ñi nga xam ne bu leen malaaka yi jël si dañ leen a fekk ñu tooñ seen bopp ñooñu malaaka yu raglu yu ñaaw xar kanam ñoo leen di jël si ñoom la malakul mawti di àndal buy jël si ñu mel noonu bokk na ci malaaka yi ñoo xam ne ñooy xasanatul janna ñoo nekk biir aljanna ñooy bëkk néegi aljanna ñooy ubbi bunt yi bu nit ñi duggee aljanna ba noppi malaaka yi dañ leen fa fekk di leen ndokkeel wal malaaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baabin salaamun aleykum bi ma sabartum fa niama uqubad daar suñ duggee àjjana ba noppi yàlla na ci yàlla boole nee na buntu yëpp malaaka yi dañuy dugg nag di leen félicité naan leen salaamun aleykum bi maa sabartum li leen dugal fii day mooy sababu muñ ga ngeen muñoon ba ngeen nekk àdduna la yàlla digle ngeen muñ di ko def la mu tere ngeen muñ di ko bàyyi moo tax kon muñ rëy na lool muñ rek lañ leen tuddal salaamun aleykum bi maa sabartum tey day kon fa neema uqba daar seen kër gii day di kër gu mujj gii day askay kër la goo xam ne kër la goo xam ne gu tedd la waaye am na ci malaaka yi ñoo xam ne itam ñooy bëkk néegi safara moom la borom bi ne wa qaala allazina fi nnaar li xasadati jahannam ud'u rabbakum yuxaffif anna yawman min al azab nee na ñi weddi yàlla te xee di nekk biir sawara dañuy wax bëkk néegi sawara yooyu ne leen ñaanal leen nu yàlla mu waye falal nu mbugal mi doonte benn bis la sax yuxaffif anna yawman min al azab nee na ñu ne leen ñaanal leen seen bopp ñun kay duñu ñaanal koo xam ne ku texee di la ba nekk ci mbugal yéen kay bu ngeen dee ñaan ñaan leen moo tax ñuy woo Malik naan ko wanaa daw yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk qaala innakum maakisuun ndax lan laqad ji'naakum bil xaq walakin aksarakum lil xaqi kaarihun Malik mooy ki jiite bëkk néegi safara yooyu malaaka yi yore safara ñooñu ku ñuy wax Malik boo leen jiite waa safara suñu sonnee ba sonn dañuy woo Malik yaa Malik waxal yàlla mu jekkaleenu li yaqdi alayna rabbuk mu ne leen innakum maakisuun foofu ngeen di sax de kenn du leen jekkali ndax lan bu ngeen nekkee ci àdduna dañ leen a andi loon dëgg wax leen dëgg waaye li ëpp ci yéen bëggul woon a dégg dëgg walakin aksarakum lil xaqi kaarihuun malaaka yi dañuy sopp lool ñu gëm yàlla dañ leen di ñaanal moom la borom bi ne huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min azulumaati ila nuur malaaka yi nag seenug julli ci ñu gëm yàlla mooy dañ leen di ñaanal di leen ñaanal ak njëggal ci suñu borom tabaraka wa taala moo tax borom bi ne allazina yaxmiluuna al arsa wa man xawlahu yusabbixuuna bi hamdi rabbihim wa yuminuuna bih wa yastaxfiruuna lillazina amanu wa yastaxfiruuna lillazina amanu rabbana wasiata kulla shayin rahmatan wa ilman faxfir lillazina taabu wattabau sabilak loolu la malaaka yi wax da yàlla yow mi nga xam ne sa yërmande daj na lépp jéggalal ñi nga xam ne ci sa jaabi ñu di tuub ñi nga xam ne topp nañ saw yoon malaaka yi dañ leen di ñaanal ak njéggal malaaka yi bokk na ci seeni jëf yi ñuy jëf fii ci àdduna dañuy teewee jotaay yi ñuy jàngalee xam-xamul islaam ak jotaay yi ñuy tudde yàlla dañ koy teewe waaye bi lu mel ne bisu àjjuma bi itam mel ne fii tey mën nañu wax ne malaaka yi ñu ngi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu bisu àjjuma malaaka yi dañuy taxaw ci bunt bi di bind nit ñi ku njëkk a ñëw ñu bind la koo xam ne ka njëkk a ñëw tuyaaba dañ koy bind day tolloo gëléem gu mag a mag a mag gëléem bu boxta gu rëy moom la tuyaaba jay tollool ka ca topp ñu bindal ko tuyaaba yi aw nag wu rëy rëy ka ca topp ñu bindal ko tuyaabay am xaaf ba ka mujj ñëw ñu bindal ko tuyaabay ab nen su ko defee nag bu ilimaan dugg see malaaka yi dañuy daal di lem seeni kayit ñoom dugg ca biir jàkka ja toog di déglu la nga xam ne moom la ñuy def ca biir jàkka ja xutba ba ak julli ga kon ku ñëw gannaaw imaam moom teewul da nga amuk julli wala malaaka yi waaye duñ la malaaka yi duñ la enregistré da nga fekk moom ñu enregistré ba toog ñoom duñ la bind moo tax kon ajuma di teel a dem di jiitu ilimaan nekk loo xam ne lu ama am solo la malaayika yi xam leen ak gëm leen am na ay meññeet yu bari yoo xam ne moom lay jural jaam bi la ca jiitu boo xamee seenu màgg ñoom malaayika yi ak ni leen yàlla binde da nga ci xamee màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi leen binde noonu li ñuy rëy rëy daraja ak ni ñuy mel lépp suñu borom tabaraka wa taala moo leen jox melokaan boobu bokk na ci meññeet mi ngay jële ci gëm malaaka sant suñu borom tabaraka wa taala ci fonk gum fonk doomu aadama ba boole ko ay malaayika malaayika yoo xam ne ñoom duñu mooy yàlla benn yoon ñu boole la ak ñoom te yow ngay mooykatu yàlla ñu ànd ak yow ci di la garde ak di bind say jëf bokk na ci xam malaaka ak gëm ko da nga leen di sopp da nga leen di nekk ñu féeteeg ñoom ngir teraanga ji leen borom bi tabaraka wa taala defal moo tax kon mbokki jullit yi kenn ku nekk ci noonu war naa wattandiku lépp luy tax malaaka yi di loru ci bu ñu àndeek moom wala sax ñu koy sori wala sax ñuy bañ a dugg néegam wala ñuy bañ a dugg këram loola nag mooy wattandiku ay moy yàlla wattandiku lépp loo xam ne lu ñaaw la wattandiku di sàggan ci bañ a tudd yàlla bokk na ci liy tax malaaka du dugg ci kër wala dugg ci néeg ay photo nekk fa moo tax ñuy jël ay photo di wékk di rafetale seeni néeg néeg yu mel noonu malaaka du fa dugg wala ay xaj nekk fa xaj liñ ci mayee mooy xaj boo xam ne garde la day garde kër ga te fekk ñu soxla ko fa waaye bu dee xaj boo xam ne bu ñuy móobalee kër rek la bu fa nekkee malaaka du fa dugg rawatina nag ay esthétique yoo xam ne moom yu ñu yett la wala lu ñu defar la mu am jëmm yooyu lañ gën a tee bañ waaye même photo yii sax loolu buñ ko wékkee wala ñu teg ko ci biir néeg ba loolu day tee malaaka yi du fa dugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne laa tadxulul malaaikatu baytan fiihi kalbun wala suura muttafaqun alayhi malaaka yi nga xam ne ñooy bañ a dugg ci néeg bu am ay photo wala mu am ab xaj yooyu mooy malaaka yi nga xam ne dañuy wër di tasaare yërmande ak di tasaare barke amma malaaka yi nga xam dañ ko booleeg nit ki moom ñu koy garde wala ñu koy bindal ñooñu moom bu fay photo nekkee du tee ñu dugg fa ñoom ñooñu duñu taxalu ko nit ki benn yoon la xaafisiin la leen borom bi tabaraka wa taala tuddee ñooñu moom seenu jaamu yàlla mooy ànd ak moom amma malaaka yi nga xam nag yàlla da leen di yabal ci adduna bi ñuy tasaare yërmande ak di tasaare barke kër gu ñu jub fekk ay photo nekk fa wala xaj nekk fa ñoom duñ fa dugg amma malaaka yi nga xam ne nag moom dañ koy garde ba jinne yi duñ ko faat ak di bind ay jëfam ñooñu moom loolu di leen tee dugg moo tax kon bokk na ci li ñu war a sàmmoonte itam ngir malaayika yi mooy di wattandiku xet gu naqari yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na koo xam ne lekk nga soble wala nga nekk laaj wala daal lépp loo xam ne am na xet gu mu bàyyi ci sa gimiñ xet gu neexut te mënoo tàqale koog moom nee na bul ñëw ci jàkka ji ndax nee na malaaka yi kat dañuy loru ci lépp loo xam ne doomu aadama da ciy loru lépp luy naqari doomu aadama ci ak xet rek di ko déranger loola itam malaaka yi ñoom itam bëgguñu lu mel noonu moo tax kon doomu aadama bi war nay fexe di am xet goo xam ne gu teey la xet goo xam ne gu laab la allahuma salli ala nabiyika muhammadin xaatimi nabiyin wa ala jami alanbiyai walmursalin wa ala malaikatika almuqarrabin wa ala ahli taatika ajmain wa radia allahu an ashaabi rasulillahi ajmain wa an ittabiin wa taabii attabiin lahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain